Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester avec nous pour suivre le journal de la campagne électorale qui est à son 14e jour euh, ce samedi 23 juillet 2022. Je vous rappelle que le journal de la campagne électorale est placé euh, sous le contrôle et la supervision du CNRA. Nous allons démarrer cette deuxième tranche de la soirée par la coalition Benno Bokuyakar. Elle a battu campagne hier dans les localités de euh, Kaolak, Berkilan, Catherine et Malem Odar, avec la prise de parole de Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition. la capitale du bassin arachidier fa taw bu amee dañuy sant rek sant rek sant rek. le président xam nañu li mu liggéey ci réew mi xam nañu li mu liggéey fii ci Saloum ak li mu liggéeyal Kaolack xam ngeen ne autoroute baa ngi yegg si loolu rek war naa tax ñu jox large majorité à l'Assemblée nationale au président parce que autoroute bi buy yegsee di nga mën a xëy fii di loolu it euh, ak boole koog nag tous les programmes yi nga xam la amal de le département de Kaolack gis ci c'est une ville culturelle la ville du Goyane et c'est aussi une ville religieuse nous avons toutes les familles religieuses nous ngi am yakarne président ndam lu yato yaatu la fi am d'abord roi, nga jottali félicitations à notre vaillante équipe nationale qui a été couronnée de Sadio Mané à El Tactico loolu pour bien sûr il y a le talent des joueurs mais il y a le soutien du président Macky Sall y a am que des joueurs de talent mais la différence, c'est la baraka du président Macky Sall et tout l'appui, tout l'appui qu'il a donné à cette équipe nationale, y compris le joyau de Dakar, le stade Abdoulaye Wade. Yagengen Joy, la route Catherine Ganda de 35 km. Il a fallu que le président Macky Sall arrive pour que ce calvaire finisse, à l'instar de toutes les femmes sénégalaises président Dougal le département bi 2,1 milliards à travers la DS. FONGIP 1,07 milliards. président Macky Sall pour sacrifier sa jeunesse il a le une ci ay mortel combat pour le a il croit à sa jeunesse pourtant il y a 40 investis jeunes sur nos listes nationales et nos listes départementales 31 juillet de ngeen koy parel. Parel let's go pour que le 31 juillet on ait une éclatante victoire ici à Capé. Voilà, c'était la coalition Benno bokyakar et pour le programme de demain, les localités suivantes seront faites par la coalition Benno bokyakar notamment euh, Tivavon, Geoul, Darmousti, Kebemer et Thiès. Et nous suivons maintenant la grande coalition Wallou-Sénégal. Dans son programme d'hier figuraient les étapes suivantes. Seyou et Bunkiling. et face aux militants se sont exprimés Lamine Fati, Mamadou Lamine Diallo, Waressar et Mamadou Lamincha. Population de Bunkili, l'heure est arrivée pour un changement véritable dans ce Sénégal. Chers jeunes, nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour libérer ce pays. Ici même dans ce département, le 17 juillet passé, un délinquant est allé fusiller deux jeunes dans leur propre maison. Aujourd'hui, le procureur l'a libéré. Le procureur l'a libéré. C'est dommage dans ce pays. Quand on est avec Macky Sall, on est intouchable. Mais quand on est de l'opposition, vous êtes astreint à toutes les actions qui vont nuire la démocratie dans ce pays. C'est le moment, le 31 juillet 2022, et comme vous l'avez nié. Ni ne mou makate bayran kaitoti. Ni ne département de Bunkini à la tabe ni ne bala. Ni be kairo sabatana na banko kan. Ni ne na dino feyan lambulu. Ni fe on ne voter nié. Il président Wadley e présent, Ali alifa babacar et e wotata présent, ousmane sonko way jayla ngay ko bi mulu mbalti ari luno munon muñeyatinna jumolon kirin fulan jaba fulan lamin saba wala benta n bɛ bon Ndelbe, Voilà, wala na ntɛli bɛ 31 juillet 2022 victoire totale contre Macky Sall. lu ma ci gën a metti qui lu ma ci gën a Nous mooy garabu Casamance ndax ñun bu nekkee xale soo jëlee oto nga Gambie di traversé Bunkiling fii yëpp day fees là yi mais légui do gis garab do gis garab ñom ñoo dagg garab évidemment xam nañ ko am nañu ay Sénégal ak Gambie ak chinois ñom ñoo jël suñu garab gi diko sax saxé diko exploiter il faut que ça s'arrête et la solution, c'est de récupérer l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, vous avez les représentants du peuple. Si les ressources naturelles appartiennent au peuple, alors ce seront les représentants du peuple qui vont veiller à l'exploitation des ressources naturelles. Madeleine Nouyou, qui trouve son excellence le président Abdoulaye Wade le président des cœurs et des esprits waaye dama ne yéen waa Bounkiling maa ngi leen di seedeel lamin Fati maire yi Gorée ci Sénégal ci la bokk de fi mu tegoon tànkam ba léegi fi la ko teg bougéwul koy sooy ànd àndal ak gor soo àndee gor fu mu jëm ngeen àndi Gorée soo àndee jàmm bu demee bàyyi la nga am gàcce ku ne xam na ne nag Woré Sarr mi taxaw fii nag ak Lamine Diallo tekki mii nag Nous avons une opposition bi l'Assemblée nationale malheureusement nous avons une majorité pour nous faire des li ñu bëgg a su le soir du 31 juillet 2022 que vous donnez une majorité absolue à Wallou et nous sommes au Sénégal.

pour donner la victoire à la grande coalition Wallu Yewi le 31 juillet Et nag xam ngeen ni ñii nga xam ne si lañ leen tabal ci di Lamine Fati xam ngeen ni ñii assemblée nationale danañu nekk député yu nga xam ne si danañ leen fa taxawal Voilà, vous venez de suivre la grande coalition Wallou-Sénégal. Et pour demain, dans son programme, la grande coalition Wallou-Sénégal ira à Linger. Ranero et Worosogi. Et focus euh, maintenant sur les activités de la coalition Natangé Askanui qui était en meeting à Medina Yorofula et à Kolda et la soirée. Elle a mené des visites de proximité, ambiance et temps fort de la journée d'hier. ba Sédhiou naata nga askan wi ba Kolda naata nga askan wi ba Matam Nata nga askan wi ba Tambacounda naata nga askan wi ba Ndar Géej naata nga askan wi ba Sine Saloum naata nga askan wi ba Thiès naata nga askan wi ba Fouta naata nga askan wi ci Dakaru ko da Adama Aïcha Ceerno Ceerno Mohamed Diallo setu Cheikh Omar Foutiou Tall yaa doon na jibale tika na tanga askan wi mi ngi fépp ci Sénégal docteur Mohamed Diallo soxna Fatoumata Thiamay sa yaay Cheikh Ahmed yi sa baay magistrat may cuune mbaa amoo ku la jàppale dangay ñàkk bu yàlla baaxee nga war a baax kenn mënu laa bonal ci àdduna garab gi war a doon pénc teg bët ba góor ko moo seeni bëgg-bëgg lépp ci jàmm ak salaam naataanga ci xol yi naataanga ci xel yi naataanga ci gox yi à l'instant même, la coalition Natangé Askanui est pour le programme. La coalition Natangé Askanui sera demain à Paoskoto, c'est dans le département du Nord du Rip, région de Kaolak, et elle sera aussi à Dakar. Et nous allons terminer la soirée par la coalition Boko Gis Gis Ligue qui était à Mbirkilan. Mohamed K et Ali Ousso se sont exprimés au nom de la coalition. Mangi nuyu wa Mbirkilaan gep ku ne xamna ñun ñoy candidat bi Boko gis-gis liggéey loolu moom ñëpp xam nañ ko tey ci département de Birkilane dama ne dëggay dëgg xam ngeen ne yéen ñii am ñu paas ñëwal seen bopp ñëpp di taw te toog di ñu xaar kenn añu ci kenn naanul ndox waaye na ngeen ko mottali woote liste bi su ngeen ko wootee yàlla dana leen may ñaari député yoo xam ne da leen di jege lool muy professeur Alioune Sow mii ak Mohamed Ka mii di wax ak yéen dama leen di laaj ñaar fukki at yii ban dimanche ban dimanche ngeen ma gisul fii sama bureau bii may waxtaan ak yéen xam ngeen ne loolu amul loolu laa saxoo ak yéen dama leen di jege di wax ak ñoom te bu ñu fa yàlla yóbboo li ma leen di dig mooy amul kenn ku mën a jaar suñu digganteeg ñu wax soxla mbir kilaan amul ku taxaw suñu kanam suñu war laa wax soxla mbir kilaan ak koo mën don doon dinañ la ko wax liste bi moo nekk nii yéen ñëpp ngeen xàmmee ko mooy ñaari loxo yi ñu jàppoo yooyu bu ngeen ko sànnee woteel ngeen ma woteel ngeen professeur Alioune Sow woteel ngeen président Pape Diop woteel ngeen ñëpp te mooy liste bi nga xam ne su ngeen ko wotee caaxaan yi assemblée dina fa joge parce que loi yu nga xam ne loi yu nga xam ne ñoom ñooy xool rek ñëw ne la kaay wote ko loolu xam ngeen ne

kon li ma leen di dénk mooy xam xammee ngeen tin bi doom taal ak bleu ku ci nekk ci yéen yaa ngi whatsapp am nga facebook neen koy statut wan ko seen i mbokk wan ko seen xarit wan leen ñuy wotee besu wote bi mu taw mu xiin mu ngalaw da ngeen am oto yi ngeen dem tawte wote ba ñu compter ñu gañe Voilà, vous venez de suivre la coalition Boko Gisgis Ligue et je vous rappelle que demain, la coalition Boko Gisgis Ligue va observer une pause. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette deuxième tranche de votre journal de la campagne électorale, placée toujours sous le contrôle et la supervision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA. Merci de nous avoir suivis et merci infiniment à toute l'équipe de coordination. Je vous souhaite de passer une agréable soirée.